di wax ni vivement que ce ce procès se termine. waaw mm-hmm. qu'il se termine parce que ni nga ko waxee la amee. Mm-hmm. Euh, on en parle. on en parle et on continue à en parler. te boo koy xool euh, njariñam ci développement wu réew mi mm-hmm. bariwul. Sénégal mérité wul ambition mën na am. mais que l'on heurte l'institution judiciaire comme c'est le cas actuellement mm -hmm. je ne pense pas que daf ñuy honorer man dama jàpp ni principe démocratique institution yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk république bi buñ ci naax saayee rek principe yi day effondré wu dootuñu nekk ci démocratie mais ci leneen la nekk mhm. kon ak lu munti am man je un appel à la raison des uns et des autres parce que wax naa ko feneen ce pays la héritage bu ñu jot la yàlla def tey ñu bokk ci acteur politiques yi nga xamante ne mën nañ la invité kër jaraaf ngay joxe sa xalaat nombreux sont les Sénégalais qui n'ont pas ce privilège on ne doit pas en mm-hmm. donc privilège boobu ñu am ba ñu bokk tey ci ñiy wax ñu leen di déglu moo war a mun a tax ba ëllëg bu ñuy joxe ñu nit héritage bi ñu bàyyi fi dëkk bu ànd ak dal institution yu solide gën a solide sax nañ ko jotee woon. pour man se ça le défi qui nous interpelle aujourd'hui et ça interpelle tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde moo tax il faut que nous sachions raison garder quoi qu'il advienne parce que lu munti am rek man dama jàpp ni deux citoyens sénégalais yàgg nañ di xeex di am problème di dem justice di ko régler te coow mm-hmm. Mm-hmm. bu yàlla sot yàgg sàkk nga dégg ko fi bés bu yàlla sàkk donc pourquoi deux citoyens sénégalais quoique ouais. kenn ki mm -hmm. il aspire à diriger le pays ñu war a mën a bloquer ce pays là xel mënu ko nangu. parce que dañoo jàpp ni que euh, tey jii nii le fait que lii nii yëpp demee nii c'est parce que dañoo bëgg éliminer ki nga xamante ne moom mooy euh, Ousmane euh, Sonko ki nga xamante ne aujourd'hui suñu xoolee yëpp comment ça se moom mooy quand même euh, adversaire numéro un moom mooy leader de l'opposition. waaw loolu argumentaire politique la man ñu koy défendre mun naa leen ko concéder. si on regarde les faits. waaw mais les faits aussi mën nañu ko interpréter autrement. mm parce que man dama jàpp ni tey homme politique bu mu mënti doon boo Sénégal à travers le monde ailleurs d'ailleurs da nga bëgg am un parcours boo xamante ne c'est un parcours que tout le monde peut reconnaître mm -hmm. comme un parcours bu bu raisonnable un parcours bu élogieux ba keroog ngay yegg fa nga xamante ne moom ngay aspirer boo jëlee l'exemple du président Macky par exemple en 2012 par exemple mhm. avant qu'on en arrive d'ailleurs li ko commencé 2009 ba 2012 quand il avait pris l'option de diir damay créer sama parti politique pourtant intenté nañ ko plusieurs actions en justice fu ñu ko convoqué day wuyu ji ci njëkk ak teraanga dem lay ciy war a am moo ci am mu ñibbiwaat këram mais il avait dit que jamais au plus grand jamais du renoncer moom ci li mu gëm mm-hmm. ba moom ak son dialogue avec le président Wade dafa amoon rupture boo xamante ne moom jàpp na ne sur le plan éthique ak moral pour rien au du dellu si waat ginnaaw loolu moo ko yóbbu fi mu ko yóbbu tey maanaam li ma bëgg wane foofu mooy nit ak lu mun munti am quand tu as raison avec toi mhm. et nga jàpp ne lii c'est de l'injustice mhm. moom lañ lay teg wala que dañ la bugg gàllankoor pour que ëllëg doo nekk lii wala doo nekk lële pour man toujours il faudrait pas que tu prêtes le flanc mhm. d'accord donc pour yow il faut que nekk ci configuration boo xamante ne avec cette désobéissance là il mais désobéissance pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays boo ko wootee réew mi naax saay dëkk bi jaxasoo dara doxatul ëllëg nga nekk président nooy régler loolu. d'accord tu vas passer tout ton temps à vouloir régler alors que li nga soxla dëgg-dëgg mooy bu ñu la joxee réew mi salaamaaleykum maaleykum salaam que les choses ay vite loolu la ñu soxla ñun. d'accord Sénégal soxlawul loolu fi mu toll nii.